الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله نجي ورا جلتي آية مجو في سورة لقمان في سنة برام سبحانه وتعالى بوخي يا أيها الناس اتقوا ربكم ينون يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما مي فنويرلو آي بي اك نيت في سورة اللقمان نيغي سانت سونو بوروم سبحانه وتعالى ci mu wërsegal ñu ñu dajé ci ab néegam fasiyene jël ab téeréem doonte ne ne loolu mi ngi tombeek natt boo xam ni boole na ko waa suuf yépp muy li nga xam ni moo ñu jural li ñu tuddee couvre-feu ba tey jii lu bari daan jóge ci gox yi sori di ñëw loolu mënatul a nekk fa lilahi alhamdu xanaa di wax rek ne soo demoon ci lu mel ni site xam islam point com da nga fa fekk waxtaan yi jàkka ji su dee ne da nga yor whatsapp it soo yónnee woon si numéro ci 77 814 42 20 42 20 daañ la dugal ci groupe bi ba waxtaan yi nga koy mën a jot foo mën a nekk ñu ngi ñaan suñu borom yàlla ñu teew ci jàkk jeeg ñu fi teewul ñëpp yal na yàlla boole ñu la yonent bi alayhi salaam doon béggale ca ña daje ca téere bu yàlla ba yal na yàlla wërsëgal ñu ak dal wërsëgal ñu yiir ñoo yërmandeem sant ay malaakaam ñu wër ñu ca mu tudd ñu tudd bu rafet ca malaaka yene fa moom tey mooy ñaar fukki fan ci li nga xam ne mooy janvier 2021 loolee da ngay gis ne it mi ngi tombeeg juróom benni fan ci li nga xamee ne nii moom mooy jumaadal axira sunu maam yi dañ ko tuddee maamu koor ñu ngi ñaan suñu boroom subhanahu wa taala yal nañu dëppale ngërëmam incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na barakallahu fiikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم مني يا أيها الناس اتقوا ربكم أي النيني رجل لنسين بروم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي تيت ngeen ragal ragal gu ànd ak tiit ak toroxlu bis boo xamee ni nii benn way jur du mën a jëriñ ca doomam ja ci dara wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a benn doomit du mën a nekk di mën a jëriñ ca wa juróom wa dara inna wa'da allahi haqq dig bi yàlla digg day dëgg la fala taxurannakum alxayaatu dunya ngalawaay bu mu leen wor dundug àdduna gi wala yaxurannakum billahi alxaruur ngalawaay bu mu leen wor ci yàlla workat ba te mooy cheytaane ak i mbooloom inna allaha indahu ilmu saa yàlla day nekk na ci moom xam-xamu bis penc kañ la wa yunazilu alxays yàlla moom mooy wàcc ab taw wa yaalamu ma fi l arxam yàlla moo xam la nekk ca biiru jigéen ya wa ma tadri nafsum maza taksibu gada amul benn bakkan boo xam lan lay faggu suba mi ngi noonu wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut amul benn bakkan boo xam ci ban ci suuf lay deeyee inna allaha alimun xabir sa borom yàlla nag mooy ki xam lépp ki ñàkk kumpa ci lenn lu mën a doon mi ngi noonu mbokk suñu borom day woo nit ñi nit ñooñu dana ëmb ñi ko gëm ak ñi ko weddi ñépp mu yaa yohan noos borom bi mu ne nañ ko ragal ragal yàlla moom mooy fexe ba doxale suñu digganteeg mbugalam kiiraay ci def ay ndigalam bàyyi ay tereem mu ne nag na ngeen ragal bis ngi ñëw boo xamee ni nii amul lenn loo xam ne dana fa mën a musle lu dul koo xam ni dafa ragaloon yàlla kese nga amoon baay bu baax ba mel ne ibrahim ba mel ne nuux alayhi salaam du tax yow doom jaaroo fa neexul yàlla suñu borom ni comme baayam ko baax la woon rek naa ko seete baayam déedéet nga am doom ju baax ju mel ne ibrahim suñu borom du wax naa ko xoole doomam ju baax ji déedéet loolu tax nuux alayhi salaam doomam sawara la jëm ibrahima alayhi salaam baayam sawara la jëm loolu it mbokk lu mu lay jàngal mooy pas-pas bi nit ñi sos ci diine man kat sëñ Caam laa yaakaar man kat sëñ Jeng laa yaakaar kay yaakaar sëñ Sow mbokk julit bépp yaakaar bu dul yaakaaru yàlla neen la xanaa sëñ Caam amul doom xanaa suñu sow amul baay te suñu borom nee na baay du jëriñ doom doom du jëriñ baay kon kan moo fay jëriñ mooy la suñu borom wax ci yeneen aaya yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma izin lillah mooy bis boo xam ne kenn du jëriñ kenn dara lépp mbir yépp dañ koy delloo yàlla borom boobu nag mu ne xam leen ne yàlla lim digge dëgg la ay yow julit da ngay gëm ne ni ngeen nelawi biig yeewoo tey bis dañ ne la ma sa pëkk pëkk ci sa bàmmeel yee la nga dekki taxaw ci place bi sa penc su booba ñaari kër moo la fay xaar kërug aljanna boo jaaroon fa neex yàlla yàlla na yàlla boole ñu ca kërug sawara boo jaarul fa neex yàlla loolu nag moo tax suñu borom ni fexe leen ba àdduna bu mu leen wor ba ko àdduna suñu borom nee na mataaul xuruur la day waraate am na ñoo xam ne dang dang ci gannaaw alal tax na ba taluñoo jàng seen diine dang dang ci gannaaw sport tax na ba taluñoo jàng seen diine dang dang ci gannaaw ay diplôme universitaire tax na ba taluñoo jàng seen diine xamuñu dara bal lañuy jàngoon ci saar bi ko jiitu muy ruum ya'lamuna zahiran min alxayaati dunya wa hum an alaxirati hum gafilun àdduna fexe nañ ba xam ko fexe nañ ba dajale ko am kër gu baax soxna yu taaru fexe nga ba am waruwaay fexe nga ba am compte bancaire amma diine dara loolu mbokk àdduna war na la gannaaw ba it fexe leen ba seytaane bu mu leen wor seytaane mbokk doo ko dégg waaye am na ci kaddu yi muy waxe képp koo xam ne ma ngay woote jëme ci shirk kooku mbokk kaddug seytaane lay feeñal kuy woote jëme ci bida kaddug seytaane lay feeñal kuy woote di doyadal diine kaddug seytaane lay feeñal fexeel ba bu mu la wor nooy def ba du la wor mooy jàngal sa diine fokk nga jàng sa diine ngiree nga mën a xàmmee la jóge ci yàlla ak la jóge ci keneen borom boobu loolu la wax bokk na ci lu yàq diine ñu bari mooy ñoo xam ne jàpp nañ ne am na ñoo xam kumpa ba ëllëg di wax lu fay xew lu dul yàlla masalan alaxira bi alaxira nit ñi feeñal nañ ni sëñ diw mooy am lii sëñ diw mooy am laa loolee ku nekk ci yéen yàgg ngeen dégg lu mel noonu waaye mbokk loolu kumpa la kumpa la goo xam ne yàlla rek moo ko xam moo tax suñu borom ne lii xew àllaaxira maa ko xam te it leeral nañ ñu ko mooy kenn du jëriñ kenn dara ku nekk la la fay jëriñ mooy ragal yàlla ga nga indi woon sa digganteeg sa borom yàlla it moo xam kañ la àllaaxira di tàbbi kañ la àllaaxira di tàbbi yàlla waxu ko yonent waxu ko malaaka da koo dencal boppam nee na daal du ñëw lu dul ci mbetteel borom boobu it mu ne man may wàcce taw te mbokk taw gis nañu ne famille jaar di commencé ci ngelaw yi yàlla di yónni akub jantam mu am lu ñuy tudde évaporation lii jóge ci géej gi ci fleuve yi yéeg jëm kaw suñu borom di ko dajale def ko ay niir yoo xam ne rukaama génne ko ci ay montagne fiha min barat xool fa ko neex mu wàcc ko fa mbokk loolu yàlla rek moo ko mën yàlla mooy wàcc taw taw boobu nga xam ne mooy base dund doomu aadama ci kaw suuf borom boobu it jàll waala nee na moo xam li nekk ci biiru jigéen ñi ma ne ma waaw temps yi kat léegi am nañu la nga xamee ne nii mooy échographie jigéen bi bu ëmbee mën nañu xam góor la ëmbam jigéen la ëmb waaw mbokk ndax échographie mën naa feeñal ne kii kat day dund ci biiru yaayam ba mat sëkk juddu wala dañ koy day yàqu ndax échographie mën na feeñal ni kii kat bu juddoo day gudd fan wala day gàtt fan ndax échographie mën na feeñal ne kii bu juddoo ko baax lay doon wa ko wala ko ban lay doon ndax échographie dina xam loolu laa wallahi suñu borom nag mu ne huwa a'lamu bikum iz ansha'akum min al ard wa iz antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bi man ittaqa borom bi mu ne maa leen gën a xam depuis ma leen di sos ci seen bàyyi aadama maa leen gën a xam bi ma leen bindee ci seen biiru yaay yi ngeen na fa kumm ku maaral seen biiru yaay ya fii zulumaatin salaas suñu rom boobu xamoon na kan mooy baax kan mooy bon kuy gudd fan kuy gudd wërsëg kuy nangam kuy nangam huwa aalamu bikum kon yaalamu ma fil arham ca moom rek moo ko xam borom boobu it ne amul benn bakkan boo xam looy liggéey suba ba ko doomu aadama kenn xamul suba ci lan ngay nekk kenn xamu ko aka bari ñoo xam ne seen programme tëraloon nañ ko damay dem fii dem fii dem fii suñu borom bette leen feebar bu leen tëral hôpital suñu borom bette leen dee gu ñu yaakaarul woon suba wolof nee na ëllëg ëllëgi yàlla la yàlla rek moo ko xam looloo tax ba ab julit lépp lu muy mébét danaan insha allah su neexee yàlla ah mébét naa def nangam de insha allah waaye yow it doomu aadama su dee ne xam nga ne ëllëg xamoo ci lu mu lay nekk fexeel ba tey baax am déet fexeel ba tey baax ba nga xamee ne ëllëg bu nekkee bi su dee it yow nga dee yàlla ngërëmal yàlla bañ a doon boroomi mébét nekk ci riba ba nekk ci carte ba sàgg ne diine naan garaawul après dinaa tuub après dinaa danaa dabantal ku la wax ne da nga dabantal ku la wax ne da nga fa dund ba ba ëllëg loolee mbokk képp kenn ci ñun bu ñu ko laajoon mën na laa wax fukki nit ñoo xam ne dee mbetteel lañu dee loo xam ne nii mi ngi noonu xam xam nañ ko li ma ci mujj dégg tey jii rek un jeune gendarme nekk ci plein kattanam sous-officier gendarmerie jëlee këram tenue d'entraînement am entraîné ji ba ñëw dem jaar ci benn bassin bu nekk foofu nga xam ne mooy tàkk ci gaz bi dugg ci bassin bi ne de sangu sangu ba pare bëgg a génn mënatul a génn yàlla yemee la ko foofu misaal boobu dama ko joxe pour tey mën na am ba muy jógee këram mi ngi naan eh maa ngi dem entraînement ci ñëw mais lan la yàlla def après Sénégal gépp dégg ko noonu benn misaal la yàlla yàlla jéggal ko yërëm ko waaye loolu valable ci moom mën na valable ci ku nekk képp ci ñun képp kenn ci ñun loolu ñu bàyyi ko xel bu baax looloo tax ba jullit moom toujours day jéem a nekk à jour ah mën na am heure bi ma toog tey day dana ma fekk ci biir bàmmeel ëllëg ca wallahi ak bari ay nit ñoo xam ne nii heure bi nga xam ne ci la ñu nekk ñëpp naan gis nañ leen ci mbedd mi ñuy dox heure boobu fekk na ñu suul leen ci biir suuf kenn xamul ñaata la loolu moo tax ba julit di war a bàyyi xel loolu borom boobu it ne kenn xamul fay dee ak bari fii ay nit ñoo xam ne feebar nañ dund fii Sénégal mosuñoo dem France mosuñoo dem Amérique pendant soixante-dix ans dem ba mujj feebar bi jaaxle ñu ne waaye dañ ko évacuer États-Unis waaye daa dem États-Unis rek dee am déet fekk da doon dabu ji ak dund suñu borom mu ne dee gi ngeen di daw day daje ak yéen kenn xamul foo koy defee loolee ñu bàyyi ci xel bu baax suñu borom nag mu ne mooy ki nga xam ne mooy ki xam lépp ca mooy ki ñàkk kumpa ci lépp lépp lu nekk sa biir dënn xam na ko lépp luy jëf xam na ko lépp luy wax xam na ko mbokk lii mooy suratu luqmaan nga xam ne mooy saaru xikma yàlla nga ko ubbee xikma feeñal ci ay xikma ba jeexelu ko ci xikma yal na yàlla may ñu al xikma waxoon nañ leen bañ koy tafsir xikma mooy nga xam-xam-xamu sharia ba pare jëfe ko yal na yàlla yombal ko ci ñun mi ngi noonu Cheikh Ousmane